asalaamaaleykum mbokk internet yu Wassare Célébrité dal leen ak jàmm bienvenue dans votre rubrique K sur le plat comme d'habitude K yëpp la ñuy jël dafa leen ko sur le plat ngeen tànn si bu leen neex ñu bari yaakaaroon na ni kii di Awa Baba Thiam ba moytul maanaam histoire bi du si yëy du si yàbbi ba li ngeen yaakaaroon amul parce que dafa mel ni ànd bi audio bi nga xam ne nii génn na dangeen ko ngeen ko di Baba mais la question qu'on doit se poser mooy kan lay tontu Sala wala ñu ko jaxasee Sala wala ñeneen lay en tout cas c'est à vous de juger avant ça écoutez déglu leen ngeen xool kii di Awa Baba Thiam kàddu bi nga xam ne yëkkati gannaaw audio di taxawalu ci tëddanteeg di guinante xeyna kon heure bi lenen lañuy wax mais dañ ma bàyyi fi ma tok li lañu mëna wax may naa len ko sarax nañu jël yàlla jox len nañu jël yàlla jox len ñu yor sen lamine di duul nan moko santane moko def neex nako arranger nako neena la sànq encore une fois je réitère sen saram day ñom ñep man duma ñom nawlo nawloo ma leen man duma ñom nawlo nawloo ma leen tollu ma fu ma kenn internet man lépp fii la ko fekk may juddu te damay dé bayyi wat fi lépp nak nañu ngang ma wad ku bëggul gis bul tijji bul seetaan man intéressé wuñu ma li may def ragalu ma ko la preuve sama statut li ma ci ñor li ma ci neex ñi ma ci fonk ñooñu laa fa dugal keneen ko fi dugal man xaw ma la intéressé wuñu ma sax Salla Sow toppatoo ma leen man événement day xew Sénégal ba jeex duma ci dugg duma leen ubbi parce que bëgguma leen gis ñuy toog di lijjanti awacaa ma ko def ak moo ko wax nañu wax bu ñu waxul woon rek ma dee mais deewaguñu gisaguñ dara sax man ak ñoom du foofu nopp ma seen i jëkkër bokkuñu far taxawaalu ma ànduma ak ñoom nañu wax leen neex nañu wax ak pas de souci chers internautes yu wasaare célébrité yéen a ko déggandoo gis ngeen kàddu yi nga xam ne nii kii di Awa Baba Thiam génnee na ko gannaaw ba éjo bi nga xam ne nii depuis 72 heures wala 24 heures moo ngi yëngal àdduna ñu bëri di wax ñu jàpp ni peut-être boo xool si yenn commentaires yi ñu bëri lañ jàpp ni ba est-ce que kii di Salla Sow waroon na génn di wax si lii maanaam amul classe si commentaire yi rek.

vous savez affaire de millionnaire affaire de euh, na laal ko mën a waxee sax affaire de jeeg affaire de jaay classe ba amul dara li nga xam ne nii moom lay toppee à Baba Thiam on sait pas en tout cas question mooy posé encore une fois di ko posé waat mooy kan moo génnee audio yi moi c'est ça mon problème kan moo génnee audio yi c'est ça mon problème moo xam audio Sala Saw wala audio aw Baba Thiam kan la est-ce que kooku nekk ci diggante de fu pour Jacques mbir yi lan la gagné on sait pas en tout cas fu mu vous nii bi ngi continuer ba encore une fois je vais le répéter et je vais le redire un millionnaire suñu yoon nekk si société dinañ tey seen biir bi cas le plat comme d'habitude cas yëpp lañuy jël defal leen le Gentil, tànn si bu avec votre frère Mamadou Rassoul ciao n'oubliez pas de vous abonner sur Wassare Célébrité ciao merci beaucoup